Euh, da nga nekk ci mode en tant que kuy lijjante coordination coulisses ak affaire yooyu noonu mais nga nekk ndongo daara jaar ci daara jàng alxuraan te xam nañ ne milieu mode milieu bu xaw a doy waar la sa famille sa entourage. doy waar mooy lan ci yéen lan ngeen déggee doy dinañ ci ñëw dinañ ci ñëw hmm. sax parce que xam nga mode euh, fla euh, kii la bon amusement la musique la.

gis nga man lepp li nga wax ni que mode dafa nek milieu milieu tiaxan man ci di non milieu bu ay nit des personnes responsables nek di ci tedd di ci faj seeni soxla di faj di di di gérer sen ay njabot des gens qui se respectent yu ñu respecté ñoo ci mm. donc dire que la milieu mode dafa nek lu milieu tiaxan je te dirais non. Mm-hmm. là moom je suis pas du tout d'accord. man mën baña d'accord ak yow ci kaw lenn. Mhm. milieu mode. Mhm. on y retrouve les, comme dans tous les milieux mais mode ni ko nit di on y retrouve les moyens, c'est-à-dire. prostitution minci ci mode. am ci milieu journalisme. drogue minci ci mode. am ci milieu journalisme. nan minci ci mode. am ci milieu journalisme yow mi fréquenté. Mhm. mannequin yi. nekk seen xarit et tout. Euh, nan beeg drogue beeg prostitution minci ci mannequinat bi. lan nga ci wax. non mais man gisuma

après podium bi kooku moom la xam nga fii àdduna ku ne dafa yor say sew-sew mhm. waaw yow après défilé dooy ànd ak ay mannequin ngeen dem boîte alcool man damay damay dem dem même bu dul défilé damay damay génn waaw je suis jeune alcool bi nekk man gisuma ko du ma naan sàngara jënduma ko gisuma ko mais gis nga ay mannequin yu gisuma ko wallaay gisuma ko ni ma gisee comme par exemple yéen ni ñuy woowee mannequin noonu la gisee journaliste buy naan sàngara gis mbër buy naan sàngara gis un diplomate buy naan sàngara gis un policier wala beneen corps de métier buy naan sàngara donc pour man loolu du question que c'est la mode non non non mais nit la nit mooy am ay faiblesse am am ay bëgg-bëggam kooku ken du ko ci man du ma ko ci topp bokk man perso du ma ko ci topp du ma ko ci critiquer mhm. c'est sa vie concerné wu du moment où day ñëw sama coulisse ak ak ak conscience am di def li ñu bëgg ci xew mi mooy moment d'un défilé lii lañ soxla ak attentes yi la ñuy xaar ci moom mu respecté ko le reste man I don't care mais au bir coulisses par exemple est-ce qu'il arrive que mannequin yi indi fa wala indi fa drogue non mosuma ko gis barke Cheikh Al Hadj mais coulisses comment ça se passe. ah mais comme comme liguey la rek. Mhm. sol yëre yéeg wàcc. de plus liguey la. mais est-ce que tu trouves normal en tant que bon yow da ngay superviser yaa ngi si coulisses. waaw da ngay gis parfois ay mannequin mhm. def silibu nen ay góor jigéen ci même coulisse. Mhm xam nga déjà loolu à l'image de la société sénégalaise ñu bëri dañ koy ŋaññ dañ koy critiquer da ngay gis mannequin yu jigéen yi mannequin yu góor yi def def silibu neen def silibu neen sol ak soutien neen di di di circuler ci bi yow loolu du la choqué yow gis nga moment ah, ñu bëri def leen di jaaxal en fait gis moment défilé ñu nekk ci coulisses yi ah, nit bu sumeekoon def ba def ni ko ndeyam juree man euh, yàlla xam na ne gisuma loolu xam na laay gis li ci kaw podium bi ndax mi ngi koy def peut-être dama koy wax ñu yaakaar ne damay jéem a dédouané ou pas non non non non moment boobu leneen mooy nekk sama xel que que que que kii summeeku na ki ni la yaramam même ou pas. mais awra Jigen, ak nu mu ak yow ni nga jangé alcorane awra jigen nuñ ko wara fonké nga gis ay jigen di summeeku ci kanam ay goor wa yow ngay gis ay disant parce que dañuy défilé. yow léegi yow xana yow jot nga di xala do dugg ci boîte de nuit xamone nu bi doxé fi tolli mais maintenant si on est à jamono mode de lañ nek xale jigen elle marche toute nue dañuy dañuy dox rafle donc euh, nga nek ci coulisse ci sa cadre liguey euh, sen liguey solo su meeku la donc man gisuma ci euh, man gisuma ci muskil ah mhm. aswa got mhm. gisuma ci lu garaaw wala lu nit mën ngagne du moment où c'est dans un cadre privé mhm. wa moment de coulisse la amul caméra bu fa dugg wala photographe bu fa dugg elles sont pas exposées ci biti donc pour man sen liguey lañ nek lu ñu war respecter la